maam sëriñ sill mi ngi gane àdduna ci atum 1889 ci dëkk bii di Taïba Ndaw Taïba Ndaw sëriwul dara dëkk bii di Ndindi Bugul maam sëriñ sill doom la ci soxna asta mbàkke bu Mamor Anta Sali Mbàkke ak kii di sëriñ Masamba asta sill sëriñ Masamba asta sill mi di waajuru maam sëriñ sill soxna asta mbàkke mi waajuram mook mamor anta sali mbàkke ñoo bokk benn waajur wu góor muy maam balla mbàkke kon maam sëriñ silla mbokkum sëriñ bi la ci wàllu gune waaye kii di maam sëriñ sill bi matee jàng lii di alxuraanul karim ci ëttub waajuram la jànge lii di alxuraanul karim muy sëriñ Masamba asta sill mi moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal lii di alxuraanul karim ginnaaw waajuram wi jaar na itim ci ku ñuy wax baay njaga maram sill jàng na fa itim lii di alxuraan gëstu fa itim ci wàllu xam-xam ba géeju fa lool kon mën nañu wax ne ci ñaar ñii daal lañ yëg ne ci ku maam sëriñ sill jaar ci wàllu njàngum alxuraanul karim ak xam-xam maam sëriñ sill wax nañu ne sëriñ tuuba seexul xaddiim la ko waajuram wa duppee waaye bi seexul xaddiim ñibbisee ci géej gi ci atum 1902 jàpp 1903 boobu kii di maam sëriñ sill am njàngam eggul daana jóge ca daara jëm nekkoon di fekk ci seexul xaddiim ci fi mu nekkoon su masaa ñëw mbooloo ma koy jëlsi ñu ci bari suñu egsee ci kër seexul xaddiim ba gis ko dañuy mujj jébbalu ci seexul xaddiim mu def ko ay yoon seexul xaddiim ne ko demal wéyal sam njàng ba am lii di xam-xam su ko defee nga doog a ñëw kon ci nettalik maam sëriñ sil daana wax ne ñu bari de ciy mbokkam bu ñu jébbuloo ci jëlsi guñ ko daa jëlsi ci bu masaa daw ñëw ci seexul xaddiim ci la jaare seexul xaddiim jógewaat fi dem gànnaar ñibbisi ñu def ko résidence surveillée ci fi nga xam ne moom mooy Ceyeen Jolof maam Serigne Sill daana ko fa fekk waaye taxagul nag ba nëga ni mu nekkagun taalib yépp seexul xaddim ginnaaw bu seexul xaddim jógee Ceyeen Jolof ñëw fi nga xam ne ni moom mooy njaareem nag fala maam Serigne Sill ci la toll ci ñaar fukki at ak ñett ci nettilib maam Serigne Sill ko mu nettili kooka nettili ma nee na ko moom keroog bi muy ñëw njaareem di seet si seexul xaddim njébbal taxu ko woon a jóg waaye daal ziyaare si gum doon ziyaare si seexul xaddiim moo ko taxoon a jóg bisub keroog mu ñëw njaareem am fa ñaari fan bëgg gis seexul xaddiim mënu koo gis bëkk néeg bi ñuy wax mbàkki juuf moo dalaloon maam sëriñ Sylla ci ñaareelu fan ba seexul xaddiim ubbi ne mbàkki juuf ana sa gan gi fi nekk mu ne ko ma fa mu ne ko fexeel mu ñëw ma gis ko keroog ñoom ñaar bi ñu gisantee ci njaareem ginnaaw bu mu ko nuyoo ba pare maam sëriñ silla seexul xaddim dane ko noo def ak téere bi maam sëriñ ne ko ñu ngi ciy nab nabi am na itam luñ ci suñu boroom xamal seexul xaddim woowaat mbakke juuf ne ko damal dalal ko ca fa mu nekkoon indil na ko fa ay bernde ak i teraanga jox ko ay këyit ngir mu bindal ko ab kaamil ca kaamil boobee nag ba mu ko bindee ba pare kii di maam sëriñ sill ba yit ko seexul xaddim seexul xaddim dafa jël kaamil ba fóon ko teg ko ca dënn ba ne ko de téere bi de wow na lool macha allah mbind mi dara manqué wu ci waaye ak sàdd rekk moo manqué ci kaamil bi ñu teg ci ñaari fan seexul xaddim woowaat kii di maam sëriñ sill ne ko ñëwal delluwaat ca mbokk ya comme da nga doon ziyaare si rekk ñetti fas la ko jox benn ba maam sëriñ sill nee na suukar ak kafe moo ca nekk ba ca des yërey góor ak yërey jigéen ba ca des nag jotu ko tekki ginnaaw bu ko seexul xaddiim ñaanalee ba pare la jëlaat loola jox ko àddiya loola moo nekkoon ak njébbalam kon ca mbindum kaamil boobee ba mu noppee ba seexul xaddim waroon koo ñanal ngir mu ñibbi àddi yooyee mu ko joxoon àddi yooyee la joxaat seexul xaddim jaayanteeg moom nekku njébbalam seexul xaddim ne ko loo ci bëgg mu ne ko képp ku yaakaar tay ba ëllëgam mën a jaara ci man seexul xaddim ne ko nangul nañ la ko te danañ la ko defal maam sëriñ sill des njaareem di bindal seexul xaddiim ay kaamil mook ki ñuy wax sëriñ Issa Gueye sëriñ Issa Gueye nag ci taalibey seex Masàmba Mbàkke yi la bokkoon mook maam sëriñ Sill bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ni bu seexul xaddiim daa bind ba pare ñoom ñooy jëlaat xasida yi wala kaamil yi xoolaat ko bu baax a baax a baax laata taalibe di ci jot xam ngeen ne néew na lool ku gis mbindum seexul xaddiim ca loxoom bu tedd ba ndax bari na mbind yu bari ñu na seexul xaddiim moo ko bind dëgg la de waaye lu ci baree bari ñaar ñii lañ gisoon seenu mbind muy maam sëriñ sill ak sëriñ isaa géey suñu paree nag cheikh masamba mbàkke lañ koy jébbal mu maasaat ko xoolaat ko ñu dog ko tasaare ci taalibe yi seexul xaddiim daana bindal boppam ay xasida ak kaamilu alxuraan bi cheikh abdul mbàkke defaree daaray kaamil ba pare ba ñuy wëraat mbindum seexul xaddim ca loxoom bu tedd ba liñ ci dajale bariwul ndax ñi ko amoon bariwuñ ndax li ko waraloon mooy seexul xaddim ñaare su masaa bindub kaamil walla liitu xasida ba pare ci ñaar ñii lay jaar ñu toppaat ko buñ ko jaree maas ñu maas ko ndax seexul xaddim yaxub kese rek la daa bind wala ñenn ñi itam ci mag ñi suñ mësaa gis xasida gu seexul xaddim bind ba pare buñ ko jàngee ba mokkal ko dañ koy fob def ko ab téere di ko takk ba tax na téere mag ñu bare bari ci ñi daa topp seexul xaddim seen téere yooye boo ko toppatoo mbindum seexul xaddim la wala ñaar ñi bindaat ko suñ paree fob xasida googa gas suul maam sëriñ Sylla nekkoon na itam ku seexul xaddim doyloo woon ndox koo xam ne su masaa bindu xasida ba pare yow la koy jébbal nga toppaat ko way wi bu bokkul ci xasida gi nga war ko war a dugal ca geneen xasida yow yaa koy def suñu paree ñu dog koo jébbal seex sàmba kon kooku moom ku seexul xaddim doyloo woon la bi seexul xaddiim nekke njaareem kër gu mag ci këri mag ñi toppoon seexul xaddiim am na ci at moo xam ne nii kër yu bari tàkk na wala luñ tudde ak lakk amoon na fa lakk googee nag ca la seexul xaddiim joxoon ndigal kii di maam sëriñ sill mu dem Touré Ndula ngir fekki mbokkam ma sëriñ moor faati ture kon loolu mooy sababu maam Serigne Sill dem fi nga xam ne nii moom mooy Touré Ndula Touré Ndula googu sax xasida gi ñu tuddee fulk bi foofu lañ ko njëkk a bindaate ginnaaw bu ko seexul xaddim bindee kon bari na xasida yu baree baree baree bari ci yoonu murit bu ko nit ñi gisee wala ñu xam ko nañ ko sante jëmm ju tedd jii di maam Serigne Syll gis naa ci mbindum maam Serigne Syll mu wax ni jëndoon na gaal guy jar fukki junni ci jamono jooja jëloon ku ñuy wax Serigne Issa Gueye bokkoon ci bindkati Cheikh Massamba yi ngir mu koy bindalaat yenn xasida yi xasida gum masaa dégg fenn na menn mag am na ko dana dem ba ca moom su ko waree àbb mu abal ko ko su ko waree jaay mu jaay ko ko wala su ko waree luye mu luye ko ngir ñu bindaat xasida yi laata daaray kaamil di am am na bibliothèque bu amoon ci jumaa ji bibliothèque googe xasida ya fa newoon kii di maam sëriñ sill moo ko daa bind ak sëriñ isaa géey bibliothèque boobu sëriñ xaafiya ñang mooy ki ko yoroon bi cheikh abdoulahat mbàkke toogee xalifa defar lii di daaray kaamil lañ fabaat xasida yooya muulaat ko yóbbu ko fii di daaray kaamil xasida yooyu maam sëriñ Sylla daa bindaat ci turandu la nee na way wu ne ci xasida gune fistin la ci daa fay ci jamono jooju bépp murit bu jàng ay xasida war nga sant te ñaanal bu baax jëmm ji di maam sëriñ Sylla ndax moo amoon jotug di wëraat xasida yi ngir di fayaat xaalisam ngir ñu ko daa bindaat ngir yóbbu ko ci bibliothèque bi nekkoon ci jumaa ji ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke liggéey boobu moom sëriñ Silla ginnaaw jógeeg seexul xaddiim loola la fi nekkee woon ba ne mu fi bàyyi ko waaye ba tey dañuy delluwaat njaareem ak sëriñ tuubaa ak maam sëriñ Silla dafa am benn bis maam sëriñ sil seet si woon seexul xaddiim mu ne ko sëriñ ñaata kaamili alxuraan nga ma bindal maam sëriñ Silla ne ko tollu na daal ci fanweeri kaamil ak lu topp seexul xaddim ne ko baa xam nga ne doo ci am dara ndax sa waajur wa man la la tudde te li nga jot bind lépp ci ay kaamil moom sa waajur wa moom moo ko moom maam sëriñ ne ko su ma bëggee am ci yow dara nu may def mu ne ko demal ba ngoon su ngoonee nga ñów danaa la ko wax tàkkusaan maam sëriñ silla ñëw ci kër gu mag gi di seetsi si seexul xaddim ngir mu wax ko su bëggee am ci moom dara naka lay def bi mu egsee nuyoo mu ne ko sëriñ egsi nga mu ne ko waaw mu ne ko amoo koo dajeel bi ngay dugg ci kees gi mu ne ko déedéet mbàkke mu ne ko ah kay daje nga ak Seydina Jibril xamal na ma ne lépp lu may jëfandikooti ci yow lay jaare kon loolu moo waraloon maam sëriñ Silla daa toggal seexul xaddiim mu wut ay dongay boppam saa bu ñu xëyee dem taxani ngir ñu taal togg ngir seexul xaddiim jëfandiku ngir firndeel ne daana toggal seexul xaddiim muy jëfandiku ci ndab yi seexul xaddiim daa jëfandikoo soo demee Touré Ndoulo ñu wan la ca benn ca ndab yebu ca bokk ngir seexul xaddiim moo ko joxoon ne ko dee ci barkeelu kon ku bëgg a gis ndab lu seexul xaddim doon jëfandikoo ci bi muy nekk njaareem soo demee Touré Ndoulo ñu wan la ko maam sëriñ sill di doomu soxna asta mbàkke ak sëriñ masamba asta sill mi mi ngi fi bàyyikoo bisub àllarba di àllarbay kare tombe mu nekk ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci mois de safar ci atum 1377 ci gàddaay bi àllarba di àllarbay kare ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru safar ci atu gàddaay bi 1377 ci ture ndula ñu denc ko ci armeer yu mag yi mu dëppook mercredi 25 septembre 1957 mercredi 25 septembre 1957 keroog bi ñu waxee cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké ne ko maam Serigne Sill génn na àdduna dafa wax ne képp koo xam ne nii de mën ngaa dem ca denc ba na nga dem gunge ko ndax de suñ borom mën na laa jaarale ci gunge boobee nga ko gunge mu jaare fa yërëm la bu yowmal xiyaamee ba du la topp dara kon kàddu yooyu la ko cheikh mouhamadal faadal seedeel bisub keroog bi mu làqoo ay xalifaam nii la tëdde sëriñ mahmoud sill moo ko wuutu ci 25 septembre 1957 ba ci mois de septembre 2003 mois de septembre 2003 ba nëgë ni nag sëriñ abdou samad sill moo fi nekk ñu koy ñaanal bu baax a baax mu taxaw waajuram wa màggalam gi sëriñ Mahmoud Sylla mi nekkoon xalifaam moo ko doon amal ci àllarbay kare di àllarba ji mujj ci weeru safar màggal na ko ci 1958 ba 2003 ci 2004 la sëtam bii di maam sëriñ Sylla diw turandoom dem nag seeti sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke ngir doon ko yëgal bis bi Seex Saalihu Mbàkke laaj ko lan mooy sababu bis bi mu wax ko ba pare la ko sëriñ Saalihu Mbàkke wax na ne bis bi bu sañoon daal ñu toxal ko ci beneen bis kon 2004 ba nëgë ni jàppatuñ ko bisub àllarbay kare waaye nag ci lañ ko tàmbalee màggal ci samedi bi njëkk ci weeru gàmmu bu dul juróomi fan ya maanaam samedi bi bu dul le première le deux le trois le quatre ba le cinq samedi bi beneen date bu am ci ludul date yooyu ci lañ koy jàpp ngir màggal li nga xam ni mooy màggalub maam Serigne Syll kon ñuy ñaanal bu baax njabootuk Serigne Mahmoud Syll njabootug maam sëriñ sill taalibe yi soppe yi ak ki seen dara jay waajur wa ak kañu yaakaar di maam sëriñ sill